Ibrahima Faye ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax nous vous rappelons que nous sommes toujours en direct sur euh, YouTube euh, l'Évidence TV EVTV bien sûr et euh, quotidien da leen wéy di abonné ngeen di partagé te di bës cloche de notification bi pour mën a jot en et en heure toutes nos émissions nee leen tam ngeen di commenté ndax nee naa leen émission bi interaction lañ ci bëgg du ñu dong ñun ak yéen la chers internautes Abdourahmane dañuy tàmbali sunu premier ponk euh, bi ñu a waxtaanee tey on va parler euh, de Rose Wardini qui retire sa candidature Euh, ban gis-gis nga par rapport à ça Abdourahmane. waaw Rujita <clears throat> Rose Wardini retiré na candidature am loolu c' est une annonce boo xamante ni elle renonce sax la ñuy wax pas retiré elle a renoncé à sa candidature parce que moom dañ ko doon toppee parjure maanaam <clears throat> effet boobu nag moom xam naa ne du amagum tant waa conseil constitutionnel statué si. si si si si si kii boobu si renonciation boobu ba génnewaat benn liste bu bees boo xamante ni au lieu de vingt dix neuf candidats lay doon si lay si nag renonciation bi di acté quoi en fait si lañ koy génne carrément si liste bi mais pour l' instant elle déclare que elle veut renoncer à sa candidature en fait loolu la wax quoi maam si biir waxam na ngay de dafa ne dafay renoncer mais en fait elle n'a pas encore renoncé mais elle veut renoncer à sa candidature léegi il appartient nag au conseil constitutionnel de statuer sur ce cas précis bu ko defee nag après ñu ne nag elle a renoncé carrément wala définitivement à sa candidature quoi mais li si am solo mooy que ne Rose Wardini moom <coughs> maanaam buñ ko jiiñee dafa am double nationalité gars yi cool yi bari woon na gars yi jàpp ko teg ko ci kaso bi si loolu la Macky Sall sukkandiku woon en partie pour abroger décret bu mu convoqué woon bu muy convoqué corps électoral bi décret bu mu génn pour abroger décret boobu si en partie si si le fait que Rose Wardini nee nañ dafa am double nationalité parce que Macky ba muy def déclaration bi le 3 février boo ko dégloo dafa mel ni dafa ne Rose Wardini moom moom dafay dafa moom dafa mel ni moom daf si am lu ko leer daal que ne elle a une double nationalité en fait alors que ba léegi dara leeragul ne am na double nationalité si ñun parce que jugé kuñ ko wane guñu benn preuve bi wane que ne dañ ko gis rek ñu ne mi ngi ci fichier français bi rek ñu ne elle a une double nationalité si kaw ñu jàpp ko tëj ko bi nga ko tëjee booba léegi waxagul woon mi ngi doog a wax mais si biir waxam tamit da ngay gis ne am na lu lëndëm si affaire bi yaa ngi dégg parce que moom si waxam nu nga koy ni ni mu waxee am na lu am waxuñu ko en fait léegi nag loolu dina leer y a des non-dits waaw ah, bien sûr parce que moom elle a parlé comme si que elle était innocente en fait mais juste que pour bañ a tilimal wala pour bañ a saltel affaire yi maanaam suite des événements yi moom elle a préféré renoncer à sa candidature pour après permettre kii bi processus mun a continuer parce que moom déjà renonciation candidature am affecté wul ci processus bi dara en fait. d'accord c'est la ah, question qu'on doit se poser. Ah, ça n'affecte pas le processus maanaam cest dire lay affecté processus bi lay mën a tax processus bi taxaw mooy que benn candidat dee. loolu kese moo mën a tax à part ça nga renoncer. wala nga empêché wu lu mu si mënti doon. mais su renoncé du am benn effet. ça n'a aucun effet dañ maam base conseil constitutionnel dañ mais nag si kaw conseil constitutionnel statué génne ko ci liste yi sinon buñ ko deful bu gars yi dañuy créer ay ay ay fiche pour moom bu élection ñëwee yaa ngi dégg. parce que vis-à-vis de la loi loolu mooy tax ñu génn ko carrément si liste des des kii des candidats yi. mais acte bi mu def tamit c'est une c'est acte boo xamante ne mën nañ ne acte bu bu rafet bu la war a rafetlu la. Mhm. dans la mesure tax. ñu bëgg waa PD surtout yi doon sukkandiku ci ne dafa am double nationalité mm-hmm. dinañ bàyyi coow double nationalité boobu bu ko defee ñi nga xamante ni ñoo des ci candidat candidat yi mën a continuer wëyal seen seen seen seen kii seen seen can seen candidature mais tamit si benn aspect da ngay gis ne tamit <clears throat> maanaam Sénégal dëkk la boo xamante ni dañoo mën a entretenir lu ñu wax lu flou quoi mm-hmm. yaa ngi dégg au lieu que ñu ñuy joxe information yu claire et net ñu am si lu le si loo xamante ni daal maanaam dafa sukkandiku si loo xamante ni dëgërul loolu la ñuy basé wu tout sur la plus pour la plupart du temps pour jël ay décisions. et des fois aussi on nous montre une seulement une face de l'iceberg. mais ah, parce que boo ñu nee fichier français boo ko lii rek gis si Rose Wardini loolu doyul pour ñu ne kii double nationalité la. foog nga wan ñooy preuve yu leer. léegi nag malheureusement dañ ko mettre sous contrôle judiciaire ak kii wuñ ko jé buñ ko jugé pour éclair pour indi lu leer hmm, dañ ko dañ ko dañoo affaire bi pour l'instant daal léegi lu tax. kenn xamul de ce fait moom tamit boo dégloo déclaration da ngay gis ne moom it si ni mu waxee boo nekkee am nga dégg-dégg di nga xam ne am na loo xamante ni waxu ko te frère am génnoon na fi mooy le colonel Varini wax ne ne Rose mosul am double nationalité yaa ngi dégg fu may waxee kon am na loo xamante ni daal mi ngi si biir affaire bi loo xamante ni leerul si bopp sénégalais yi waaye nag xam naa ne dina leer mën nag loolu rek laa ciy wax naa en fait parce que tamit maanaam li si déclaration mu def waxu si lu bari daal en fait dafa dafa waroon annoncer sa renonciation elle l'a fait c'est bien léegi le processus va continuer pour les dix-neuf candidats qui restent yaa ngi dégg yàlla na yàlla def maanaam Macky Sall jàpp gaaw dat ba gars yi dem parce que vraiment nous voulons voter quand même. <laughs> Cheikh Diagne xaritu Rose Wardini non kaabu bi am ko doon suivre lu ma toppal quand même <laughs> et on voit Rose qui renonce à sa candidature mu nekk lu jaaxal nit yi ou bien jaaxalu la non pourtant ça ne devait pas l'être waruloon jaaxal kenn parce que c'est dans la logique des choses mm. bi ñu suivre li nga xam ne moom moo fexe parce que elle a été arrêtée par par jur elle a été mise sous contrôle judiciaire au dernier moment contrôle judiciaire lañ ko mettre donc peut-être kii te di que ne moment où buñ ko jàppee joxuñu ko ay garanti bala muy génn parce que voilà partir la woon donc c'est coupable d'un délit mënoon nañ ko fa tëj donc contrôle judiciaire bi c'est pas c'est pas fortuit bu ñu ko mettre contrôle judiciaire et la renonciation de Rose c'était c'était évident parce que même moom bu ko defuloon en personne démb maa expliqué fii ne le conseil constitutionnel moom à chaque fois am na li nga xam ne peut-être dañu naan la les décisions du conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours mm-hmm. mais ñoom am nañ à chaque fois opportunité bu fekkee liste bi dafa am des erreurs ñu def li ñuy tuddee modification ñu defaat bi republier waat beneen liste bu voilà ñuy maintenir mm-hmm. donc l'affaire Rose Wardini Abdourahmane expliqué na ko c'est pas la peine ñu siy revenir en quelque sorte le fait que mu retiré wu amul du am benn impact ci procédure électorale bi parce que boo xoolee article 34 de la constitution sax daf ko wax dane en euh, en cas d'apaisement ou de retrait d'un candidat entre le premier tour, entre l'arrêt, l'arrêt de la publication des listes et le premier tour, euh, euh procédure bi dafay maintenir on maintient la date et maintenir juste que dañuy def rétrécissement dañuy def li xam ne mooy conseil constitutionnel day génne ki nga xam ne moom lañ doon topp dara mu génne ko mu defaraat beneen liste mu publier ko mais attention y a toujours un problème bu ma nee attention y a un mooy. au fait euh, Rose Abdourahmane expliqué na ko moom dafa def déclaration la def ne euh, elle se retire day retiré wu sa candidature mais retire boobu c' est pas encore opérationnel. c' conseil constitutionnel rek moo mën a acté retour boobu. te conseil constitutionnel souvent seen i boo xoolee seen recours laa bëgg a wax sax wala boo xoolee seen ay démarches dafay xaw a jël temps ça prend du temps et dañu nekk si benn date boo xam ne date butoir la on dit que mën naa xaw parce que d' ici conséquence na décision yi ñu jëloon yëpp wala li ñu fi génne woon yëpp comme communiqué dafay kaddi dootul baaxati donc beneen processus bees la ñuy reprendre o est obligé ñu reprendre donc j'espère conseil constitutionnel bu ñuy statuer si Rose Wardini war nañ ko def avant le 2 avril du moment que bu ñu ko defut avant le 2 avril rek dootul amati benn sens parce que liste bu fi nekk nii sax dootul amati sens day devenir caduc lépp day niil donc il faudra ñam beneen liste bu bees Rose s'est déclaré que dafay retirer mais jusqu'à présent Rose elle est candidate donc du moment que le conseil constitutionnel ne se prononce pas Rose est devenue candidate mais bon tout compte fait c'était logique pour logique et puis man du amuma leen lu may blâmer à la personne de Rose Wardini parce que boo ko waxee dara peut-être dafa parjure loolu mook yoon am na lu ñu si seq mais qu'en dit-on de de Thierno Alassane Sall parce que au fait moom logique pour logique tas c'est lui qui avait moom moo demoon au niveau du conseil constitutionnel moo dénoncé li nga xam ne mooy la candidature de Karim Wade logique pour logique. Rose Wardini bu ñu ko dee toppee les mêmes faits tas il devait avoir moom it euh, l'honnêteté mu demaat foofu nga xam ne moom lañ tuddee conseil constitutionnel même bu fekkee dañ naan les décisions ne sont pas susceptibles de recours conseil constitutionnel en dernier moo xam nañ li war a def mais demal nga dugal en quelque sorte pour signaler le cas de Rose Wardini parce que c'est ça qui est beaucoup plus cohérent yow on te dit que dagguma la mais cela montre ñoo ngi lay jiiñ ne la tu une quelconque personne moo nekk sa ginnaaw moom moo la mandaté pour nga voilà pour nga dugal Karim Wade wala pour nga wax candidature Karim Wade et pour se justifier de tout ça pour setal sa der demal nga def le même cas de figure sur le cas de Rose Wardini même bu fekkee wër na do impact wala c'est le conseil constitutionnel qui a le dernier mais pour honnêteté intellectuelle voudrait que moom mu dénoncer li nga xam ne moom mooy Rose Wardini pour des valeurs tout yaa ngi wax ne l'affaire Rose Wardini on on a des preuves le fait que ñu gis la nga inscrire le fait waaw da ne on nous a montré des preuves je suis nii inscrire ci fichier électoral français Abdourahmane toi aussi c'est pas c'est pas quelque c'est pas digne ah fichier électoral kan moo si inscrire d'accord kan moo inscrire si fichier électoral une citoyenne bien sûr gis nañ noir sur si internet boo consulté léegi ñu woon la Rose Wardini ambassade France bu mujjee utiliser passeport France am ak yooyu yëpp boo consulté léegi woon la ko bu muy bu muy bu muy euh, renouveler son identité yàggul dara ça fait même pas un mois Rose Ampe moom elle n'est pas folle bu fekkee lu tax mu retiré woo xam na lu tax mu retiré wu quelque chose se cache derrière donc mu mel euh, lu ñuy wax nii rek le cas de Rose Wardini man suy lësi laa ko jàppe parce que quel soit alpha mënuñu woon élection avec Rose Wardini parce que c' est pas possible on ne pouvait pas aller à élection ak Rose Wardini mënul nekk parce que mënuñu lay toppee par jure nga am ay affaire de double nationalité on pas ñu bàyyi la nga dem élection Karim c' est la même chose ñu retiré ko ci liste bi donc euh, injustice lay nuru mënul woon nuru leneen donc moom dañuy saluer acte parce que c' pas donné à n'importe qui elle grandeur mu teel a parce que bu retiré wu nii mën dem ba mu jur ay si kaaroog war ni la gën a souligné donc épine wala nekkatul loo xam ne moom mooy nekk benn blocus moom bu fekkee rose la ñu doon wax rek dès à présent on va parler plus de rose mais voilà la rose est fanée je dirais pas que sax mais bon c'est carrément cuit. cher doy nga waar euh, Ibrahima euh, une candidate de moi. Rose euh, qui, qui retire sa, sa, sa candidature, qui renonce sa candidature. Si l'ITIO pour une importance que Cheikh Wanoko mm-hmm. Abdurrahman nous donnait des éclaircissements par rapport à cette question, euh, qui a amené, peut-être Sénégalais, nous dit, des questions à mm-hmm. savoir le mu renoncer et tout. Eh, lépp fii la ñu fekk je pense bi muy bi ñu koy bi ñuy wax que daa am double nationalité fii la ñu fekk eh, bi ñu koy mettre bi ñu koy placer sous contrôle judiciaire en même aussi fii la ñu fekk mais li ci ëpp importance mooy que lu lu ci wax tout mooy que preuve yi ñu ñëpp gisandoon nañ ko comme ni ñu ko gisee ci Karim Wade c'est que cas bi dafa xaw a différent parce que Karim dañu gis ni benn candidat bu am bu yoon may loi bu toll ni mu déposer recours au moment wu mu xam ne Karim Wade am na double nationalité am na aussi preuve yëpp yu palpable pour mën a déposer recours ba en même temps déposer waale li nga xam ne moom mooy euh, preuve yi pour que ñu mën ko ko toppee ba tey mu tere ko bokk élection loolu moo indi tuuti différence ak Rose Wardini mi nga xam ne question Karim Wade tey moom moo ci lañ per moo ñu permettre ñu mën a xam tamit que ne moom aussi am na li nga xam ne moo di double nationalité mais li ci li ci li ci li wax tout à l'heure ci laay ñëw mooy que Thierno Alassane Sall peut-être dafa waroon dénoncer Rose Wardini man je pense gëwma lool foofu damay xaw a am tout contradictoire ak Cheikh parce que li am solo mooy ku ci nekk candidat bu ci nekk da nga war am grandeur bu toll nii da nga bëgg peut sa réew eh, dañ la wax ne la dañ la may dañ peut-être Abdourahmane il est candidat mais may nañ jox nañ ko prérogative yoo xam ne tey bu xamee ne Cheikh il est candidat et Cheikh dafa am double nationalité mën na déposer recours auprès de, du conseil constitutionnel léegi nag c'est c'est la conseil kii euh, moom moo war a statuer ci question boobu pour mën a génne pour mën a jot preuve wala mu demander ay preuve wala moom mu chercher boppam ay preuve chaque jour ci plateau bi te Cheikh di ko wax mooy que suñu agsiwee fii peut-être conseil constitutionnel la parce que moom moo toppul candidat yi mais dañuy wax tout temps comme li may wax chaque jour suñu constitution moom maanaam moo tënkul conseil constitutionnel tënk bu toll ni forcément da war a topp Abdourahmane ba xam est am na lii wala am na lii wala amul lii wala am na double nationalité wala amul double nationalité mais may na ko prérogative yi que mu topp ko mais tënk ko ci forcément a topp et moo ko accusé à ce que am na double nationalité moom moo indi preuve yi ko teree bokk élection loolu c'est diamétralement opposé ak Thierno Alassane Sall bu toppaat Rose Wardini boo xam ne gëm man jàpp ma ne moom tey am na preuve yi nga xamante ne nii moom la waroon déposé tey bu toppoon Rose Wardini est-ce que am na preuve yi est du dem di tirer ay preuve yoo xam ne ci yàpp da koy jëlee ailleurs su boobaa lan la mën a répercuté wu ci kawam donc lool c'est juste une question boo xam ne peut-être man du ma du ma ne Thierno Alassane Sall il a tort balaa ñuy gën a dem si temps bi mooy Rose Wardini bi nga xamante ne peut-être dafa renoncer à sa candidature loolu nag du ma ko du du ma ne du ma ne peut-être système du ma ko ci saluer au fait parce que dafa def déclaration sur l'honneur mu loolu mu ëpp importance je pense que ne bu fekkee tu es un citoyen te da nga gëm sa réew te xam nga texte yi lan moo ko rési xam nga li la yoon may devant une élection ak lu la yoon xañ mooy que ne booy def déclaration sur sur l'honneur war nga yow quitte ak sa conscience que ne amoo double nationalité te say papiers yëpp sont valables pour nga mën a jiite benn réew toll ni dix huit millions de Sénégalais en même temps nga am président donc loolu nit ki mu yow tu es tu es consciente que ne xam nga li lay xaaree xam nga lan ci fi nga jóge ak li nga xam ne démarche bi nga xam ne def nga ko. i hmm. xamoon na bu baax que am na double nationalité per terew ko mu taxaw devant le conseil wax leen ni moom amul double nationalité. moom citoyen sénégalais la moom nangam moom nangam léegi suñu demee ba nga xamante ne euh, tey dañ ko topp ci loo xamante ne nii xamut amatul amatul choix. parce que Cheikh wax na ko tout à mooy li mën a topp li ko ci mën a dal parce que parjure la def loolu nag peine bu mën na si si kawam renoncer à sa candidature est-ce que bi ñu koy libérer wala bi ñu koy may bi ñu koy may provisoire est-ce que amul loo xamante ne nii dañu toog ak moom tënku ak moom pour que bu génnee mu mën a xam ban yoon la mën a utiliser pour mën si génn donc loolu c'est des yoo xam ne moom à sa personne moom moo waroon au tout au début xamal nit yi que ne peut-être dafa double nationalité mu bañ a dem élection di sonal kenn tey bu ñu activé fii nañ ko wax te dee euh, mën nañu wax question Camara en partie parce que buñ mën nañ question Karim Wade mënoon nañ ko lijjanti ci benn côté après on passe à autre chose mais moom bi bi biñ xamee ne am na double nationalité ko comme Karim Wade ci la lépp commencé jukku ci nekk naan des na beneen candidat parce que Amadou Ba parce que diw parce que diw ñuy cité ay candidat yeneen ak yeneen ni am nañ double nationalité donc moom tey mooy indi Sénégal fii donc pour mu bu renoncer si candidature am loolu kenn du ko ci ne jërëjëf parce que moom mooy tardé tey processus électoral ba mu noonu noonu laa ko gisee. donc euh, ko war rek moom la def c'est important Ibrahima merci beaucoup chers internautes yéen ngi ba tey si seen émission votre set votre chaîne préférée di l'évidence TV di leen wooy ngeen di abonné di partagé te di bés ci cloche de notification bi pour mën a jot temps et en heure toutes nos émissions nee leen ngeen di commenté aussi ndax émission bi interaction la du ñun dong ñun ak yéen la ngeen joxe seen point de vue ci mi di doxee retour euh, de Karim Wade et l'appel au dialogue du PDS. Et on se pose une question drôle, euh, de, qui, de qui se moque euh, le, le PDS mais voilà may ñëw si question bi Rose Wardini laay évacuer tuuti. d' accord rapidement présomption d' innocence bu leen ko fàtte. <laughs> elle n'a pas encore été jugée ni condamnée donc c' pas sûr que luñ koy accuser moo ko def. d' accord mais moom nee na dina génne ay preuves. nañ ko xaar loolu la wax démb la maanaam si preuve yi ñu gis. parce que xam nga accusation boo gis fondement bi après hmm, wala boo conclusion yi mooy solo si mooy jugement bi ba ñu ba ñu kii il est coupable de telle chose léegi bu ko defee ñu ne tak lii mais loo xamante ni jugé guñ ko doo ne il est coupable da ngay def présomption. mais yow gëm nga ne moom bëgg réewam kese moo tax mu renoncer à sa candidature. gëm nga non man gëmuma ci moom lenn lu dul renoncer na candidature am te acté gul ndaxte conseil conseil constitutionnel. léegi nag bu ñu demee ba preuve yi génn. bu lépp leer. boobaa nag laay doog am ban appréciation laay def quoi en fait. moo tax présomption d'innocence laay fàttali rek bu ñu ko fàtte quoi. te espérons que dina leer léegi ndax. waaw cas ah. Rosa Louche ngi si. comme on dit mais bu dee dans le cas PDS moom. de kii sa moque le PDS moom c'est une question que tout le monde doit se poser en fait parce que PDS maanaam affaire bi boo ko boo defee chronique bi da ngay naan di nga poser forcément cette question. Hmm. parce que maanaam c'est-à-dire chaque jour ñuy ne politiciens yi ñoom pour des pour pour seen propre ambition pare nañ ñoom pour pour maanaam tas ay réew en fait quoi. parce que benn candidature Karim Wade hmm, boo xamante ni gëj nañ ko gis ci réew mi gëj na yëngu ci luy jëm ci wàllum réew mi. Hmm. waaye mooy candidat PDS nangul nañ leen ko. Hmm. moom lañ invalider candidature am. ngi dégg bu ñu invalider candidature te invalidation bi nekkul waa conseil constitutionnel ñoo xëy rek invalider ko noonu. Thierno Alassane Sall moo dugal recours invalidé si kaw recours bi ci la gars yi gis ne pourtant Thierno li mu dugal nii am na base légal parce que Karim Wade bu muy perte nationalité am boobu fekk na bind na ñu ngi wax deewaay déclaration sur l'honneur ba pare mm. kon moom par jour la la la déposé fait mm. ah